am nag ci miim réew kon nag candidat bi di Ba jot na rek mu daal di ay gëtam te xam na nag li koy wax dara du ci dëgg ndax information yi nga xamante ne rek moom lañ koy jox dara amul ci faw rek am sax li nga xamante ne moom mooy 3 millions de parrainage mu daal di koy xamle nag même bu defee coalition sax mënu ko am ndax ancien ministre Maître Niane tamit nag nee na nag bu rek élection yi doy waar nag dina fi am di kàddu kii di Cheikh Diao mi nga xamante rek day sàkku nag ci Ousmane Sonko la may toppee état bu Sénégal ginnaaw décision bi rek ko niki fukki ak juróom-ñaar ba noppi rek ràjjee ko ci liste électorale yi xañ ko lépp loo xamante ne Sonko ma ngay toppee état bu Sénégal lu ci milliards yoo xamante rek ne ko ko fay bu ñu ci sunu nattangooy les éco mi biral xibaar la mu daal di rek milliards yoo xamante rek war daal da nga koy jël nag defere ko ñi nga rek ñoom ñoo yàqule ci mbir mi seen matériel ak li nga rek moom la parti bi di Pastef wala bénéficié ba noppi cinquante millions yi nga xamante rek da koy jox ak njabootam dina ko jox maire bu Ziguinchor bi moo defoon ay frais ñeel nag li nga xamante rek moom mooy dossier bi nga xamante rek moom moo indi woon radiation ba rek bu ñu sukkandikoo nag ci justice yi dañ koo dàq mais ñu leen kii di Ousmane Sonko laaj toll ci mille cinq cent vingt milliards yoo xamante rek état bu Sénégal moom moo ko ko a jox comme ndàmpaay du ñàkk ci ñëwaat ci yeneen jotaay xabaar jërë leen fàttee abonné bés close de notification ngir amaat yeneen info